maanaam amuloon ko ki mais nawle chef de yi bokku len jamono mo ci gëna démocrate deug la wala du deug parce que mo ñëk nangu parti opposition fi Abdou Diouf wóor na la né mo gëna démocrate sangor parce que mo ñëw na jakk jaa ni ku mën na note te wóor na la né Abdoulaye Wade gëna démocrate Abdou Diouf fouf mais Macky Sall mo yees Abdoulaye Wade yées Senghor yées Abdou Diouf. na fo moom je suis d'accord voilà réew bo koy nat président Macky Sall moom suñu démocrate Sall fa ñëw. boo koy nat da ngay nat fi mu joggé e ba yexi parce que ku yokku da nga wàññi maanaam waruñu woon a xam ci Macky Sall ay ay ay démocratie di di wàcc mënoon na wàcc leneen parce que yow ku démocratie képp moo mën a fal ku mel ni Macky Sall démocratie képp parce que bu dee démocratie yow sa ndey amul woon alal ju ju ne gàññ comme ñun suñu yaay la sa baay noonu nangam nga da école publique jàngal la ba nga yegg si ak fi nga jaar yëpp yow boo ñëwee renq ñu baadoo moo war a gën a fer ci réew mi mais ci nguuram la ronkoñu baadoo la gën a tànge beneen bi mooy yow lii nga wax pour si nga naan dañuy déglu dañuy def sur écoute dañuy jàpp ñi dañuy tas ay kii ku tas parti politique normalement constitué nga xam ne ca Senghor la gëje daanaka la gëje yow nga def ko en ay deux mille deux mille plus de après deux mille vingt nga def nga nga def loolu ay association nga tas leneen ak leneen nga tas yow boo amee ay militaire sa wet yuy def li ngay def yow balaa nit ak xas militaire yi du la xas yow ba pare parce que dañ laa élu démocratiquement ndegam ki ñu élire démocratiquement moo mën a yegg ci Sénégal te ñooñu ngay wax tey bi ñuy def seen coup d'état ñaata nit a faatu lu néew boo leen boolee ñoom ñëpp li faatu waxuma nag ci yeneen lu yàgg wala nangam mais li faatu ci bi ñuy jël di coup d'état boo leen boolee ñoom ñëpp di personnes la kii huit kii deux ñeneen ñi amul kenn ku fa faatu ba ci Gabon bi ñu koy jël yow coup d'état woo daanaka faat luy jege téeméeri nit. y' a problème loolu la war a gën a xool. mais ça aussi il faut appeler les les les choses. damaa nangu damaa nangu li ngay def non non appeler les choses telles sont mooy lan mooy indi coup d'état lan moo koy indi. mais aussi ñi coup aussi dañ leen di woowee non non d'accord non non dama ne xam nga baat bi gën a jekk. gis nga wax man xam nga aw ma problème li ngay wax gis nekkee nit ku nekk nañu xool kàddu gi gën a rafet xam nga mënoo ko woowee président xam nga tam mënoo ko woowee président parce que dafa coup d'état mais chef de l'état la jëlal lu la tee a jël baatu chef de l'état yow ci ni ngay waxee li ngay waxee dafa ag day agressif waroo yam ak kii waroo yam ak man parce que yow war ngaa soigner kàddu yi ngay teg parce que da ngay présenter li war nga xool ne ah kii daa coup d'état mënu ma ko woowee président. parce que non mais les choses les choses. il faut les dire telles qu'elles sont ça mais boo nee mais boo nee les choses il faut les dire telles qu'elles sont Amina Amina yow est-ce que lan la lay coûter nga ne ko chef de l'État lan moo tax bu ñuy wax que ni non attends non attends attends lan moo tax bu ñuy wax ni le premier ministre Ousmane Sonko day dem seeti Mali yooyu de dañuy wax ni le premier ministre Ousmane Sonko dafay dem seeti les pays putschistes. waaw parce que ñooñu dañoo bëgg a tànn kàddu gu ñaaw. non mais non non non soxna eh, si non non les choses il faut les appeler telles qu'elles sont. ce sont des putschistes Amina Amina Amina am na neneen noo tudd noo xam ne mu la ko waxee nga nga nga mer. respecté wu ma la. te pourtant sa non dama ne yow tamit. am na am na nu ñu lay wooyee noo xam ne yow tey mën naa ne la miis da ngay dangay ngay da ngay bég mais am na neneen noo xam ne bu ma la ko wooyee woon tey tudd ne ki yore nangam nangam bi te pourtant loolu nga yor xam nga kàddu. bu ñu yeggee ci fenn foo xam ne rawatina su nawle africain yu taxaw. daal non non je peux pas comprendre bëgg a utal. non waxuma beneen tur xam nga man bëgg ñoo tëkkale ak Mali. man kon yow xeeb nga sa bopp non non. non ñun ñun ñu yoree ñu ne président ba pare di def li pousse euh, li militaire bu coup d'état di def ñoo yées Mali. maanaam tey ñu président tey. Ousmane Sonko moo fay dem. il faut non non xam nga man soxna man gis nga man Ousmane Sonko keneen ak. non mais Sonko daf fay dem moo tax. ngeen koy kii man xam nga man. ngeen koy défendre yow yow yow da nga desee xam kuy saa wolof yow loolu dama yaakaar ne. non mais loolu kese la du leneen. non yow yow yow yaa ngi naan ma diw moo tax nangam nangam rek yow xamoo ma. non mais non dama xam ne du dee. Ah, non yow yow xamoo ma non non. ba pare jël nguur gi toog ci wax en tant que respect ak doomu aadama parce que am nga leneen yow amut problème yow ni nga mel nga mel mais man kii laay waxal ci loolu. ak suñu journaliste rek présentateurs yi ak yooyu. dafa am benn mais les journalistes yi ah, ne parlent pas de bouchis munoo ñoo jàngal en fait loo xam ne ñu ñoo ko ba pare. non yow munoo ñoo jàngal on appelle les telles qu'elles sont ce sont des putschistes ce sont des putschistes ce sont des putschistes sont des non les élections démocratique ils sont élus légalement mm-hmm. ce sont des putschistes ça d'accord ce sont des putschistes alors euh, non mais attends yaa may mm-hmm. <laughs> Euh Macky Sall a laissé trop faire la démocratie au Sénégal. Mm. Trop de démocratie tue la démocratie. Il y a eu trop de démocratie au mm, Sénégal. Non mais Macky Sall xaaral ma ñëw rek xaaral ma ne la salfaañi amu fi on l'a diabolisé dama ne la la ilaha illallah kon yo xamoo li ngay wax ñun international dañ ñoo yàpp dañ ñoo respecter. ñun dañ ñoo respecter. ñi ñew barki dem ñoo wara tax international yam ñu mais Macky Sall il est respecté dans l'international non mais iya, attendez ci ci ci ci dekk bo xamne dafa am démocratie dañuy dañuy tek ay journalistes parce que liberté liberté amul liberté presse amul mané lan ngeen doon wax lan lañ doon wax mëno yor président ci réew nga diko yak xétamé nga né yow da ngay am li nga bëgg lo tegul fenn Ousmane Sonko ngi ni ñëmé ko critiquer non mais attendez ku def lu dañ koy critiquer Ousmane Sonko ñeme woo leen ko ñeme woo ko critiqué ba mi ba mu mi ngi wax Abdou Diouf mhm. jamonoy Abdou Diouf Abdou Diouf xamul woon ne sax mbuusu meew am na xamul ne mbuusu dañ daan def ay meew musul xam lu meew di jar loolu yow juddoogoo mais man xale waale wu ma ko suñ daan mus mës def couvre-feu li am couvre-feu ci jamonoy euh, euh, Abdou mu suul am fenn ci àdduna xam nga couvre-feu mën nañ laa bàyyi ngay seetaan sa télé wala nga taal télé wala nga taal sa lampe dañ lay fëgg ne la eh, fay lampe bi eh bi loolu man daf ma traumatiser dama loolu loolu loolu dama koy fàttaliku. ban année la woon ah. ban année la ba ma ne ban année la woon. boobu suñu kër ngi fii Grand Yoff. dama ne ban année la woon fàtte nga. non am na boo xam ne jamonoy euh, kii bi muy way aada euh, kii euh, kii nu mu tudd waaye. Abdou Diouf benn couvre feu def nag. dama ne la. couvre-feu yi am na fi ba taay. ci Abdou Diouf non non non Abdou Diouf. Abdou Diouf bi ñu am fii jamonoy Abdou Diouf nit amu ko Abdou Diouf nit yàmbu ko. trop de démocratie tue la démocratie Macky Sall mi ngeen euh, euh, ki wak wad. mi ngeen di defante euh, kii wag Wade en bien il a fait plus que Wade en mal il a fait moins que Wade. ah il faut qu'on arrête. ah Macky Sall a laissé faire xam nga tay ñi ngi déguerpir gars yi bu do Macky Sall mu balé. Mais mais mais su dee Macky Sall bilan immatériel. bu ñu ko am Sénégal dama ne la dama ah, ne ban immatériel comme lan. wax ma am plus de 80 mais dee ban jamono la am Kaña kaña la am wax ma depuis le dossier de Adji Sarr ba léegi muy jamonoy Pastef boobu la dee am vous lu tax ngeen bëgg ko def ci ndodd Macky Sall wala ci ndodd euh, euh, gouvernement bi fi nekkoon lan moo indi d'accord na moo doon jiite luy njiit mooy parce que les petits, effectivement c'est le mais ce sont des une association de malfaiteurs ñoo ko def pour yàq deram dans l'international mais ils n'ont pas réussi parce que l'international africain et européen sont réfléchis

exemple ba yow sax jarul ba jaaxle laay def exemple. di ko il a fait sa première nuit en prison. seen